عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهدى وبشرى للمؤمنين jullit ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaajëfal Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñu ngi nuyu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi fi teew yëpp di jël si nuyoo bi sëñ Muntaxa Bachiru Mbàkke yàlla fi yàgg te moom ak njabootu sëñ Tuubaa gépp di nuyu bu baax a baax sëñ Bas a ak xalif Daaru Muxti di yóbbante nuyoo it sëñ Xalil Mbàkke ak sëñ Cheikh Astou Faye chef de village di beral nuyoo aku cantit sëñ Bas Abdou Khodos jëwruñu sëñ bi waaye di beral nuyoo képp ku fi teew aju ci njabootu xaadim xaadim sëñ Tuubaa xaadim rasul axlu Mbàkke Mbusoobe nuyu nañ ñëpp sëñ bi président de la République sa xarit sa wóllëre moo ñu yebal ci bis bi nga xamante ne bokk na ci bis yi ëpp solo ci yoonu murit muy màggalu Daaru Muxti ñoo ànd ci ak délégation bu am solo lim nañu ñenn ñi sànq waaye ñu ràññee ci bu baax a baax sëñ Abdou Mbacke Gaynde Fatma di ministre conseiller ak le gouverneur de la région de Louga préfet département Kébémer waaye tamit ñu ànd ci ak le sous-préfet de Darou Mokhti ak El Hadj Dia excellence El Hadj di ambassadeur itinérant ak honorable Mara Diop di haut conseil des collectivités territoriales ñu ànd ci tamit ak soxna Daba Wañ député fi lañ ko fekk waaye it fekk fi sunu xarit kenn ci président Macky Sall muy le ministre sunu mag sunu xarit sunu wóolëre Modou Diagne Fada directeur général la Sonacos di ko nuyu bu baax di teg loxoy ci nuyoo bi loxoom di nuyoo ci loxoom mu yàggale ko sëñ Jiili Mbàkke ak responsable yi fekk yëpp waaye tamit di beral nuyoo bu baax sunu sunu rakk sunu sunu lépp sunu naataangoo le maire de la commune de Darou Mokhti Madiop bi tey di nuyu tamit responsable yi fekk yëpp politique yi ak boor bu mënta féete rek nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp. sëñ bi président de la République daa waxoon bu ñëwee ba ci sëñ bi ginnaaw buñ ko nuyoo ziyaar ko feddali kóllëre gi dañoo waxoon na ñëw fii ba ci moom jébbal ko sunu ziyaar jébbal ko ziyaaraam feddali kóllëre gi ndax ku ne xam na digganteem ak sëñ Bas Anta muy léppam di sëriñam di xaritam di wëllëreem yàgg ko taxawu ci biir ak ci biti wax tamit ne mu ngi sàkku ñaan ci réew mi yàlla yokk jàmm ci ndax jàmm ci la lépp xaj bis bii nag ko xam taarixu yoonu murit xam ne bis bi atana lu ne ndax bis boo bis bi nga xamante nii sëñ Touba Xaadimu Rasuul suñu yaakaar tey ëllëg ci la daje woon ak rakkam di xaritam borom daaru moxti ba muy dem mu dénk ko léppam dénk ko njaboot gi dénk ko taalibe yi mu ñëw am ci lu kawe jortam delloo ko léppit loolu moo tax bisu mel ni tey ñu koy màggal di nekk it bis bu ñu war a jànge surtout ndaw ñi ne ci réew mi surtout citoyen sénégalais yi ñu gën a xam bu baax a baax sunuy kilifa ñu xamit seen jaar-jaar waaye tamit ñuy wekk seeni jikko yu rafet ba pare fas yéene koo roy ndax digganteem ak sëñ bi du woon ak mbokk lekk moo ko lal li ko laloon loolu ci la naam waaye pas-pas ko laloon kóolute moo ko laloon ndax xam na ne lépp lu ko mas a def loo def na ko lu kowe njortam lépp fu fépp fu mu jàpp ne war na faa mën a yebal kilifa gu am taxawaay amub taalibe amub fit ba pare am kóolute ci moom yebal na ko ba pare am ci lu koy jottam kon nag day baax ñi nga xamante ne ñoo fi nekkandi rawatina ndaw ñi ñu jàng ci loolu gën a naw suñuy kilifa gën leen a déggal te xam ne amuñ lu lu amuñ lu leen sut amuñ lu lu leen gën a féete kaw président tamit waxoon na bu ñu yegsee ba sëriñ bi nañ ko wax ne lépp lu nga xamante ne naan na ko ci dëkk bi ci dëkk waajuram bi dëkk bu sell bi fas na ko yéene ànd ak moom loolu nag bi ñu ñëw wax nañu lu mel noonu ndax yeesal bi ñu doon yeesal kër daaru kër daaru ak di nga xamante ne ni mooy jumaa ji képp kuy taalibe rek war nga cee tàbbal sa loxo ndaxte fii jàpp naa ne mooy deuxième capitale modisme tayit war na am jumaa ju méngoo ak dayob dëkk wi ak dayob borom daaru loolu nag jàpp naa ne incha allah président de la république dina si jàpp bu baax a baax loolu sañ naa ko wax ndax dama feggoog ki nga xamante ne nii saa su ne lépp lu ñu war a jëm si daaru wala jëm si Touba dina ci taxaw ba mat sëkk dafay bokk toog fi toog fii it ci ñaari tànk di ko gënal mooy sëtu sëñ Touba waaye tamit nekk fi en tant que ministre conseil nga xamante ne am na fi daluwaay bokk fii kon sëñ bi président aussi waxoon na ma bu ñu agsee tamit nañ la sant bu baax sañ Bass Abdou Khoudous ndax gis na jàppandal gi ngay jàppandale diggante ak gouvernement bi ak sëñ bi ndax yaay bëtam yaay tànkam te lépp loo xamante ni moo war a dox ci gouvernement bi ak jëm si ci sëñ bi jëm si fi daaru ci daaru daaru moxti yaa ngi ci am taxawaay bu rafet taxawaay bu am solo te lépp génnul ndigalu sëñ bi te lépp génnut ñoŋal nekkinu askan wi nekkanu waa taalibe yi kon nag ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp di sàkku rek ci sëñ bi ci turu président de la République mu gën a ñaanal réew mi gën a jàppale réew mi ci ay ñaan ndax xam nañu bu baax yéeneem gis nañu bu baax taxawaayam te xam na bu baax li mu seqe moom démb ak bakki démb loolu ëmpul benn benn taalibe jërë ngeen jëf wa salaam